sama gars yi gis ngeen ko de député wu Yewwi Askan Wi nii képp la mën a mel jëfi réewande jëfi xamadi ñàkk respecté peuple bu Sénégal Guy Marius Sagna di xotti ay bulletin Barthélemy di foqati micro bi nga xam ne moom la kole gu député di waxe ñii moom nekk ca digg jataay ba di dóorante ay kurpañ pourtant waa Yewwi de ñu doon wax ne assemblée de rupture la ñu bëgg léegi lii mooy rupture ci ci ci ci comment dire ci euh, assemblée bi lu musul am ci réew mi toujours waa yeew Yewwi askan wi di ñu wan seen bopp di ñu wan ne ñoom dañoo xamadi ñoom respecté wuñ Sénégalais yi ñoom lu leen neex def xoolal lii Guy Marius Sagna di def jëfi mbaam ji mooy leen xoolal jëf ji kii ñu ne mooy maire bu Dakar lii lii nga ne yow yaay maireu capitalu Sénégal xoolal gii mel ne mbaam taxaw ci kaw sées wala xawma taabal yoo xam ne xaalisu askan wi lañ ko defaree